sëriñ bi xaraka bii li ko tax a jóg mooy soppiyaat xarxami Medina ci doxalin woo xam ne méngoo naag li nga xam ne Cheikh Ibrahim moo ko moom la fi bàyyi ndax bàyyi ñaar rek la la wax ci wasiyaam bi ne maa ngi leen di wax ne ngeen def seen itte pour jumaa ji mat ak li nga xam ne mooy maat bi ak sama téere yi nga xam ne moom laa fi bàyyi yéen samay doom maa ngi yaakaar ci yàlla ne yàlla dana leen jox wëlis lu ëpp ci wërsëg ngeen di ittiwoo sama téere yi di koy jaay waaye sama téere bàyyi yi moom bàyyi leen ko fi mu nekk waqaf loolu moo tax ñu ne bàyyi li mu fi bàyyi xalifa bi wax ko mooy ñeenti yëf mooy jàng jàngale liggéey jaamu yàlla ci loolu lañ bëgg a tënku xaraka bii nag yàlla def na balaa ñi leen di oo ndax duñu leen a bëgg a wàccee ci lépp mbooleem loo xam ne war nañ koo def ci tabax bii mat na yëpp yemb na dajale nañ cent tonnes yi yoo xam ne mi ngi nii tege loolu lañ dajale ci feer loolu lañ dajale ci béton loolu lañ dajale ci xaalis. waaye kenn ku nekk am na yéene pour liggéey ci Baye kon nañ fexe ba coordonnées yu yëngatu yooyu di am yëpp léegi kër sëñ Maax yi laa dajeeg euh, ki ñuy wax mooy coordinateur u fond Médina bi euh, xaw ma naka Guèye ma ne ko na ngeen góorgóorlu ba ëllëg. fon bi mën na nekk fonds boo xam ne moom dootu dugg ci projet sax dafay décaisser rek pour finance su maaxat bi soxlaa ñu jëli xaalis bi ci fonds bi bu tribune bi soxlaa pour gàmmu ñu jëli xaalis bi ci fonds bi bu jumaa ji soxlaa ñu jëli xaalis bi ci fonds bi yeneen association yi continuer di def li nga xam ne moom lañu am comme programme te yaakaar naa ne war nañ mën a war nañ mën a coordonner ci loolu war nañ mën a déggoo ci loolu parce que itam suñu ubbee suñ saal yi di naan ataaya wax yi dafay bari ku nekk dana jëlee fële indi pour euh, nangam ak nangam waaye yéen ñi nga xam ne yéenay doxal te di ay sët di ay jarbaat di ay frère yaakaar naa ne bu ñu leen encadré li ci des da ngeen ko war a man yàlla na leen yàlla dimbale ba ngeen mën a mottali lii ci lu ee sax six yi ngeen wax mën a jàppalante ci yenen projet ak yenen parce que lu nek ak fi. maa ngi leen di nuyu ci taxaway bobu maa ngi leen di ñaanal itam ñun ñep comme ñun ñep ñu len di ñaanalé li di ngeen bëgg a gis fi yal ngeen ko gis euh ngeen ci ngeen bëgg ko ci am itam yal na ngeen am ko ci. wax na dañu bëgg suqali merina mais da ngeen bëgg ngeen suux waye bu suux am yeen yeen suux waye merina suux bon da ngeen bëgg ku ngir xam lan ngeen représenté ci waxuma waxuma Sénégal rek waaye lan ngeen représenté ci àddina bi li ngeen représenté ci àddina bi nit ñëpp di ko fu usi dëgg-dëgg bu ñëwee war nañ fay fekk ay institution yoo xam ne ñooy taxawee yooyu bokk na ci am ak teba boo xam ne man académie tu Cheikh Ibrahima laa ko doon bëgg a tuddee moom laa ko doon tuddee naka jekk bëgg naa dund ba gis ñu tabax fii di ko dalee néeg baay bi ba fii yëpp ñu tabax ko tabax bu rëy tuddee ko académiyatu Cheikh Ibrahim fi ulumil qur'ani wal wal wal fi ulumil alquran wal xadis kon ñu ngi yaakaar su fekkee yëg ngeen ni ngeen ko yëgee responsabiliser woon ni ngeen ko defee da nga danañ yaakaar ne bala ñoo am 3 mois di ngeen di ngeen bëgg inshallah da ngeen jox Médina beneen gis-gis boo xam ne ku fi ñëw dana xam ne am na lu bees Mérina ndax ñi fi ñëw daan ñi fi daan ñëw te daawuñ ko fi fekk bu ñëwee fekku ko fi te seen doom ñoo ko def dañ xam ne Mérina mi ngi dem Mérina mi ngi doomi Mérina ñu ngi dem doomi Mérina ñu ngi yëkkatiku doomi Mérina ñu ngi ànd ak seen seen dëkk seen maanaa dëkk seen yëkkatikoo dëkk ñoom i tamit pour yëkkati seen bopp yal na yàlla defal leen ko yal na yàlla taxaw leen jërë ngeen jëf